ci réew ak bitim réew waa li neexul ci wasaare lamb saraax la def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Ama Baldé ma ne yàgg ci xët wu njëkk sunu lamb mel ni ku xamul fa mu jëm sëll bu ndaw a nga ne yàgg ci sunu làmb di yër yërnu mel ni ku gis lu mu xamul sunu lamb ne Ama se disperse ñu ne déetawaay mu ne son cummikaay se disloque ñu ne ko looy wax lii mu ne Ama Baldé daal cummikaay la dafa mel ni lu tas fu waaye xam jaar ña yor cummikaayu Ama Baldé ku ci nekk jël nga sab yoon foo xam jaar ñu ne ana Ama Baldé may ndeyi mbill ga journal ba xam le ne Ama Baldé est introuvable c'est ku koy làqatu moom Ama Baldé boo dem ba këram nga toog guddi yi yendu kër Ama Baldé wala fanaan fa taxul nga gis ko amul kenn nag ku la mën a wax ne Ama Baldé mu nga bërëb sàngam du xarit du mbokk du jege ñaale même xaritam ya fawandoog moom sax gis Ama Baldé problème la ca ñoom journal ba xam le ne li nag dara waral lu ko tudd saison blanche bi mu génne moom saison blanche ba da koo laal ba mën a tuta faj ay soxlaam wala yenn ci soxlay jege ñaaleem li moo taxoon mu rawale ji soxna saak Franc ma ñam victoire ba xam la muy saf moom i du neex a freiné journal ba xam Gomis mu ngi ci 8 combats 8 victoire saison bi daal xel yépp danañ dem ca Franc ba xam naka lay def ak moroomam moom Franc 8 victoire yépp ay mbër kaamil la ca daan ku daan géej mbambulaan daan jara 2 daan rëms daan Serigne Ndiaye 2 daan caatu yoof daan njaga doole daan mbaytin 2 daan ngeer kenn du la tere siiw ndax bébé Saloum dana freiné ci lance bii mu nekk loolu ren lay leer caatu promoteur yi jamaykee moo taxawal li ni mel fas yéene leeral leen andil leneen la amateur yi bëgg mooy derbi Pikine Guédiawaye diggante Guédiawaye Pikine ay revanche yu neex lañ fa gis bile derbi diggante Pikine ak Guédiawaye 3-0 ca mën a jàpp Eumeu Sène dafa daan Balla Gaye 2 ñaari yoon Boy Niang 2 daan Sa benn yoon journal ba xam le ne Balla Gaye 2 ak Sa Thiès ñooñee dañoo war a delluwaat Pikine jëli ndam ya ndax ñu mën a sauver Guédiawaye Balla Gaye daa war a dellu Pikine waaye du jël Eumeu Sène Boy Niang 2 lay ba daal yooyu Boy Niang soxla moom De Gaulle bokkut ak Kati Diop gis-gis bokkut ak Balla Diouf gis-gis bokkut ak Doudou Diagne Diéckou gis-gis ñoom ñi jàpp ne la mu jàpp ne mooy hors dix jours mooy diggante Balla Gaye 2 ak la làmb soxla moom a décidé ñoom seen ñeenti ténor yi jox nañ leen ay combat bëgg ñu yëkkatiwaat Fass Papa Sow Pape Ndoye Serigne Ndiaye 2 ak Tafa Gueye 2 ñoom ñépp ami combat Papa Sow dana laaleeg Siteu Pape Ndoye dana laaleeg Jackson Senior Serigne bi journal ba xam le ne yile combat bu ci Fass génnee ak i ndam dana delluwaat fa mu nekkoon le xalif général des promoteurs Serigne Modou Niang décroché na ñaari date démb ca CNG la Cheikh Ndoye may coordonnateur Mouniang production dem ba jëli seeni date ba toog ñoom jàpp nañ le 15 décembre ak le 1er janvier 2020 le 15 diggante Moustique ak Boy Sine la ñu taxawal le 1er janvier ñu indi diggante Mori Cargo ak Cheikh Super Jamono buñ jàllee na ca promoteur ya le 24 novembre bii ñu dëgmal danañ gis diirante mbagg

nañ seetaan lamb ba suñ xol sedd ñaari journée simple am na ñaari journée d'or Adrien Senghor ak gaal gi Iba Mar ak Mbour jërë ngeen mbokk yi li ma nekkoon li gën a fës ci ëtt yéene kaay bi ñu leen incha allah Prod présente l'événement de l'année à Dakar. Deux talents, deux styles, pour un concert inédit. Pour la deuxième édition du Festi Dakar, Rahu Prod vous offre une première mondiale.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 Games et Daju, le samedi décembre sur l'esplanade du Musée des Civilisations. Yé, c'est le Prince Daj. Rendez-vous le décembre à l'esplanade du Musée des Civilisations pour un concert historique avec Voilà Oui, Voilà No Games. Les choses se passent en ensemble comme jamais. Venez nombreux, nombreuses, faire la fête. Oh, oh, oh.